cette fois non ay table de multiplication 4 eh, hein? fois 10. 40. 40 plus 5. Euh, 40 moins 2. Euh, 43. est le premier ministre du Sénégal. Comme est président président Gambie. est eh, le président Gambie. non sama dëkk rek laa xam. la première dame bu Gambie. ñaari dame la am je pense je sais pas. première dame laa la wax. xaw su fekkee ñaar am kay war na am ku jiitu. waaw am mais ñaar ñëpp ay def. fi. Sénégal ban année la jël indépendance. 1960. <laughs> c'est sûr c'est sûr. Et jii soo amoon benn question pour poser président de la république du Sénégal la lay doon benn question rek. benn question bu muy poser pour président de la république bon est-ce que réellement il dina nangu defaat ci euh, troisième mandat est-ce que est-ce que jotul daal mu bàyyi. ndax directement Le ko directement. président damay damay laajte est-ce que. jotul nga bàyyi daal troisième mandat parce que je pense pas que ça, am nga am nga fit bi pour pour pour pour troisième mandat parce que wax sénégalais ñu déjà nous bi cher na Nous yokku. question ba répondre. bon non mais non mais au fait faut répondre aussi da dund bi cher na na man kéro bu kew la bay adina kew. <laughs> kew ñaar lay nous kilo kilo kew ah, mais jaay dañ jaay wala genre mais laay dox di liw ah nga côté sa bopp tamit. yaru rek waaye liw yow sa pointure masque lan la. man 36 36. maa mbërëm dëru tey baay bu ñu amee fitu dugg ci géej gi di ci sangu. en grâce Serigne Touba moo ko waral bala ay sa baay. ah bon moo nekk sa xel loo xam ne bëgg nga sax suñu laaj la ko te laaj ñu la ko loo bëgg a wax loo xam ne kenn mësu la ko laaj. man man man lenn rek moo nekk sama xel.

no been paying nada. yow jigéen bu ñàngal ñàngal da ngay neexal neexal. man man ma du ma du ma neexal noonu quoi. doo neexal kon doo am nada do am nada dama am kay. do am tus. ma am na sama mbokk fii nii am na sama mbokk. bo bàyyee dañ lay taal. ban contrat laa signé ak ya? hip hop bi boo ko dañ lay barki yow man xëy am laa yow yow. ko fi amul xaalis. doo bàyyi Karim du bàyyi. Karim moom bàyyi na man maay waaj a bàyyi. Karim du bàyyi de Karim dañ koy jëli mais yow moom boobaa dañ lay taal dañ doon da nga ba ay quatre di ma ne ba pare yow nga xëy bëgg a bàyyi. léegi dama leen di nelawal nag. non doo ñu nelawal yow doo lan moo la gën a neex ci hip hop Sénégal fi mu ne moo ci a neex non instant hip hop bi moom. lan moo la gën a naqari donc. lu ma gën a naqari booy booy ndaw yi hip hop bi booy ndaw ma lim sax mais booy mbalax quoi mbalax mbalax lañ def wala rab wala rab mbalax mbalax booy yi mbalax la ñuy rabuñu dañuy mbalax moo tax mënatul leen déglu léegi instant la nga kan mooy kan baax dip mu ngi rab ngaaka mu ngi rab wan lirigal mu ngi rab dip rabul ngaaka rabul wan lirigal moïse ji mu ngi rab moïse rabul ñoo ñëpp rabuñu dañuy mbalax gaa dañuy fontoo quoi barki sëriñ baama ñoo yàq game bi yàquñu dara ñoo barki tamit day jaar de. crème bi nan lañ ko doon woowee. nan lañ koy doon woowee. waaw avant muy tudd crème. kii radi. radi la moo tax waxoo radi. <laughs> dañoo changé moo tax. dañoo changé moo tax. tàng na tàng na dënn mbër la woon. xanaa 40 combats 39 défaites la. kii kay sa waay xam xam nga yaa ngi doon dégg euh, nu mu tarti doomu booy kayre la. doomu booy kayre. si waa kër kayre yi si la bokk quoi. moom moo ci gën a bëri défaite. moo ci gën a bëri défaite. sino naka nga gisee SCB ak xalé yi ni ñuy songé gédjé ak yoy non man mom ragal naa ko ci bénn côté quoi. waaye côté bi moko gëna ragalé moy manam mooy ni ñu ko jëlé ni ndax man sangat fii wék maa ngi dem naan boy ful bi da ngeen koy tass quoi. ndax ni ngeen dajal way ni ak mesure barrière yi xam mesure barrière yi xam mesure barrière yi xam nga da ngeen ko war di jël ci gédj voilà. mais nan lañ ci jëlé mesure barrière ci gédj wa dañu jël mesure barrière. ok 4 bar pour ce clic crease foog leen dellu sama street bees bu boy ñu taste and sleep please ndax rappeur yéen nah, a la nekk strip tease bitch Andrew <laughs> Medina ak bi ñaata kilomètre la <laughs> laaj nga ma <laughs> lu ma xamul na Andrew Medina Terrou-Bi ñaata kilomètre ñaata kilomètre est-ce que du cinq cinquante kilomètres yooyu ngantuk kilomet gue ini. Medina ak tiru bi ñaata kilomètre la. 14 14. waaw 4 fois 5. ah ah ah 4 fois. 5 4. 5, fazla yüksek, kaç fazla yüksek, kaç fazla yüksek Dubai. Ya. trente la quatre fois cinq trente. eh trente la. ah. 5 fois trente. cent quarante. ah non la du non, waaw. ah man de noonu laa eh du non de. cent quarante la nga ne cent cinquante ana ana pëlëk jay jeun yeen ay tangal petit cola so ci guró ngeen don jay ngeen ñew léegi lili buy don def ngeen koy def eh gra no moi bom euh olof it. non non defal nak dina leer de ya dugg ci jeun yi <laughs> ok léegi léegi euh bon non yow waro jay jeun waro jay jeun yow leneen nga waro jay waro jay jeun peul day jay so soow uh-huh. bu jay jeun wa lepp jay jeun kay <laughs> hmm, du yoon du yoon da eh, nga police la jàppee ci lii da nga am problème. Eh, mais yor ma sama pièce yëpp yor ma. moo tax nag bu la jàppee day gën a métti. dama uti jëpp pièce d'identité nga ñëw taxaw jaay. yor ma yëpp yor ma. amoo carte d'identité amoo dara. non non non amoo passeport. non non non yor ma passeport mu ngi si kër gi. am nga récépissé. récépissé non du récépissé de. certificat de nationalité. oui certificat de nationalité yor ma mais. yoroo dara. yor ma de yor ma. yoruma yoruma yëpp yoruma maaleykum salaam. allo Lébu. waaw noo tudd. Seynabou. Seynabou naka. Seynabou Ba. <laughs> yow pël nga. man pël la moo tax yow de moo jaay soow ngay jaay jën. yaa am fit sama yaay Lébu la. waaw papa mool la. waa Gendar la xam nga man buma jaay jeen wacc na naa. nak poli jaay jeen yi lo leen di wax ak noo gisee. jaay ah dañu wal yaan ci rek nañ leen may rek. parce que dëkk bi parce que dëkk bi dafa metti ah. motax yow nga nek jigen nek xalé di dar ndole di door wa lan ngay wax xalé yu ndaw yu jigéen yi. waaw noonu la rek baña def lu bon rek baña top xalé xale yu góor yi moo ñuy daan doole. xalé yu yi boo leen ngay am di. jamm do am jamm waye do ko fekke noo ko dul fekke da ngay dee wala. ah worul lu lay <laughs> bari na lu ci mën a fekk ndax kenn mayeetul xaalis zéro ku la may dara tey séntu intérêt ci yow. léegi man ma la mayee fukki dërëm nag. ah ba ma mayee fukki dërëm ma jël. jaar nii dem kon xam ma ne ñu ngi mayee ba léegi. waaye danga ma fekk may liggéey sama liggéey. wallaay waaw loolu la buñ la fekkee ngay liggéey dañ lay gën a respecté rek. loolu la bañ a sàcc rek parce que dëkk bi dafa metti xale jigéen ñi sax léegi bàyyeetuñ dañuy jàppale ñuy liggéey waaw loolu ngay wax kon donc euh, ki nga xam ne moo yor wàllum liggéey fii ci Sénégal. ah xanaa mu jàppale jeunes rek. parce que instant jeunes yi sonn nañu da ngay lig da ngay jàng ba sonn am say diplôme doo am liggéey kon nañu dimbali jàppale ñu waaw ñun ñu ngi ni ay infirmier infirmière la mais bu ma wàccee damay ñëw jaay fi fan ngay liggéeyee. Elisabeth centre Elisabeth bu Gueule Tapée. kon mit naa nga dëkk. waaw Gueule Tapée laa dëkk fii laa dëkk. moo tax boo wàccee doo dem noppaleku nga ñëw di liggéey fii xanaa li nga fay gagné salaire bi demeewul noonu. parce que bañ tok rek buma ma yam sama métier mais mënon na ma tok mënon na tok yam sama liggéey mais liggéey du doy. buma waccé fi ñeu xaar mat fi rek jappalé sama jappalé sama sœur sama cousine ñom ñep entreprise bi familiale la daal ñun ñep nek fi ñun ñëpp. macha allah may sen mag dal non la. Euh, yow ba nga nekkee ci lii yàgg na wala yàggul. yàgg na am na trois ans. am na trois ans. waaw te li nga ciy génn par jour ndax boo ko dajalee du ëpp li ngay am ci fi nga xam ne fa ngay liggéeyee Elisabeth. ma xam nga liggéeyal sa bopp moom bokkul ak liggéeyal jàmbur fii moom dañ góor góorgóorlu xam nga liggéey bi demeewul noonu mais dinañ ci am tuuti di ko bokkook tamit ñi ñuy liggéeyandoon waaw parce que ñu di nga gisee nii fii quinze personnes quinze employés laa am. ku ci nekk bu wàcc boo wàccee da nga koy fay nga liggéey bañ a liggéey lu ñu am daal dañ koy séddoo. ku ci wàcc it ñaata nga leen di fay. sans dépense li nga jaay rek mën nga fay 2000 comme mën nga fay 2500 bu neexulee tamit ñoom dañ lay muñal boo leen joxee 1000 francs sax dañuy téye. ne ma ñëw nga may ma jën. Mm, nga ñëw ma may jën. waaw. non dini moom yaakaar naa nag moom bu doon quoi maye doo ko fekk fii nii. bu doon maye rek doo ko fekk fii parce que gisa fu mu toll nii maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy saaf nii. Mhm. des damay lakk des fois ma saaf. Mhm. waaw yooyu laay def ak yeneen quoi. yeneen yan. yeneen. yeneen rek yu mel nan. dina baax rek. marine ba mu saf rek. marine ba mu saf lakk ba mu ñor waa pàccal li ngam laal sa marinade yaa ma a xam. Mhm. xam nga maynes bi ak. aj sa tengaado. ajal loola ajal loola. waaw di defaat tamit mën naa ko wàcce de. may say say may say say. mais gis nañ la nga nekk jeune di góorgóorlu di jaay di dóor waar bañ def ñu sa morom bi. lan nga leen di wax ñi nga xam ñoo nekk ci mbedd mi di këf di agressé di sàcc. ah ñu bàyyi rek. ñu bàyyi rek parce que fii fii nii moom lu la wax moom fii nii lu liggéey. waxu la dara. Mhm. liggéey kese dëgg. Mhm. te man jël jël yëfu jàmbur man yëfu jàmbur sama néegu. mosoo jaar ci affaire xale yooyu noonu di sàccantu di di di agressé wantu di di simol ak yooyu. loolu moom mënul ñàkk moom jaar naa si moom. mos nañ la jàpp ah. non man nag moom vraiment man xam nga man du ma salte quoi. bandi lan nga man kenn mësuma jàpp. cos rek cos rek muy gaaw bu yéexee baaxul <laughs> tous jaajëf. <laughs> man xaw ma xam nga lu ngay jaay ni solo.

ñaawaay bi day day nëbbu ñaawaay day nëbbu ñaawaay bi. xam nga mais yow ñaawuloo. man dama ah merci. mosuñu la ñaawuloo. mosuñu mu kaa wax. xanaa célibataire nga moo tax ngay wane sa bopp. waa gis nga célibataire 100 pour cent. <laughs> foo dëkk yow Dakar Grand Dakar laa. Buzz Sénégal Buzz Sénégal. waa Grand Dakar laa. Grand Dakar yëgoo ne téléchargé nañ leen géej. géej géej non yëguñu ko woon. seen maire bi nu mu tudd. maire bi Ndeye eh, Sali bi Fatta xaw ma turam de Ndeye Sali daal xam naa jigéen ku jigéen ki Ndeye Sali la tudd. waaw keneen ku góor ku góor ki xaw ma turam. te diggante yàlla xamuloo turam. non non ak mu jàmbaaree. ah gis nga ce que lu ma fay nekk moo bëri dëkkuma foofa à 100 pour cent. Jean Baptiste Diouf. waa xay euh, merci. répète Jean Baptiste. Jean Baptiste Diouf Jean Baptiste Diouf répété ko ñeenti yoon. Jean Baptiste Diouf. Jean Baptiste Diouf. Ah. Jean Baptiste Diouf. teg ko ci temps. <laughs> Jean Baptiste Diouf merci. waaw na xamu dawal naan waaw naan waaw léegi la moo tax tegaloo ataay bi ci bopp koñ bi ngeen koy teg fii parce que ñun moom mooy loolu ataay bi xam nga rek warga bi bëriwul suukar si bëriwul bàyyi foog ñu. ko xam nga ne suukar yokku na. yàgg de daal xam naa laal na ko ay 2000 yooyu noonu. question bi ku ko ma xam ne am na jabar saako ceeb ñaata lay jar. 15000. nga ne 15000. 17500 la yokku na 2500. na indi trouvé naa de. yëg nga ne benn waaye dañ ko musoon wax ne ceeb yokku na moo tax mu reporté mariage am. waaw dafa reporté bëri na même am na cas bu ma gis fee ne mooy waaye ton lañ yokk peu de ton. waaw looloo tax mu foo mu ngénte li. ku mu dawee na nga fet. peu de ton mu foo mu ngénte li peu de ton. da doon ngénte ñu ne ko ton yokk na mu foo mu ngénte li. <laughs> da ko bëtal. ah ba tëbal na ngénte li man dama yaawoon ngénte li ay sandwich la sandwich su ton lañ koy def. xaw ma bu ceeb yokkoon moom xanaa day day day am doom. mu def ko naq. yenn saa yi du jàmm. ah naq moom saa bu génne du jàmm. ah naq baaxul ah loolu du jàmm yow. loo wax yow. ma ni sa ceeb yokku na maire bi jaay restaurant koñ loo koy xamee maire bu jaayee plat huit rek ceeb yokku na. bu wàññeeku bu wàññeewoo plat téeméer moom mooy loolu ceeb ceeb wàññeeku na. ñooy dem réseau naa mais defal xooñ bu bëri. xooñ bu bëri keroog moo ñu dal. ku bugg a xooñ a ngi nii nag. keroog dañoo ku bugg a ngi nii. keroog dañoo dem maire bi jaay ñu xooñ ñu lekk noonu affaire bi sec ñu xëy romb maire mu ne yéen am na lu may xaame yéen laa jaayoon xooñ ma ne ko xooñ bee ñu rey maire moo tax ba léegi gars mooy loolu gëj nañoo añ. instant yi instant yi crevettes rek la ñuy lekk. kaay jus ñaata. francs. jus 100 francs suukar bi yokku na de. buy wala bi saba. Ah. jus ma suukar yokku na. suukar la kay yokk kilo bi ñu ngi koy jaayee 800 alors que mi ngi doon jar 600. franchement parler yokku na daal. moo tax yow lan lan nga yaakaar ne moo suukar bi yokku. ah ñi daal mooy loolu suukar bi day yéeg di wacc rek ainsi mun ñu wax exactement parce que yenn saa yi daal niveau bi daal mën na augmenter de trop ba xamante ni il faut ñu man yokk rek pour améliorer situation yi ku si nekk mën si jëriñoo rek. Euh, situation yi nekk franchement parler bëri na métti na. waaw ah, léegi ñu wax ko en français li nga doon wax sànq quoi. Hmm? Hmm? wax ko ci français Euh, Lancy, li expliquer tout à l'heure <laughs> je voulais dire que le sucre a beaucoup augmenté parce que notre niveau de population a augmenté aussi. Nous devons, pour, pour, pour, nous améliorer, il faut que nous nous, nous, nous, aidons entre nous. C'est ça que je voulais dire. Sénégal Diom Kanam. Sénégal nga rab aca rab mooy teg ngay teg yow feeñ nga teg laay teg saa cek kay cek du leen mar noonu ndox kon voilà gis ngeen embouteillage gis ngeen euh, li nga fi amoon ci ay nit ça bouge c'est l'été loolu moo nekkoon émission bi nga lañ leen di proposer tous les week-ends fii ci Buzz Sénégal gis ngeen place bi nu fii ci teeru bi jaaykat yi xale yi nga xam ne ñoo ñëwoon féexlu si mag ñi nga xam ne dañu ñëw accompagner seen ay xale gis nga xale boo ko yoree bu nekkee ci vacances da nga koy surveiller doo ko bàyyi muy dem ak sagoom loolu retrouver nañ ko ci biir parce que gis nañ ñu baree bari dañ ñëw ak seen papa ñi ñëw ak seen yaay ñi ñëw ak seen grande sœur ñi ñëw ak seen grand frère c'est comme ça surveiller leen xale yi puisque c'est l'été donc beaucoup de gis ngeen sécurité mi ngi nii police baa ngi fii maître nageur ñi ngi ci ah, xam ne ñoo fi nekk nekk ay jaaykat di daan doole ne infirmière la mais bu weekend joté da fay ñëw xarmat liggéey ñenn ñi nga xamné ay goor yalla lañ ñi ngi fi di liggéey ñi nga xamné ne aussi tamit dañu bëgg seen bop bëgg dimbal seen ay wayjur ñëw nañ fi tamit gis nañ leen donc c'est comme ça c'est tous les samedis ou bien tous les weekends da ngay am seen émission euh, c'est l'été merci beaucoup à Mohamed gis nga tay nak fi lañ tok ci benn ruxu mën naa am sax duma ñibi mëna baye Mohamed mu ñibi merci beaucoup à tout le monde à bientôt